xam ne bu mat a teewlu la bu mat a waxtaane la sax waaye bu mat a teewlu la itam nag donte li ñu koy waxtaane mel na ne xaw na bari waaye nag tey loo xam ne waxtu nekk ñu ko war di indiwaat ngir njariñ li ci nekk ak li ci mën a juddoo ci meññet moo xam ne murit bu ne mën naa wax sax jullit bu ne waaye rawatina murit bu ne war nga ko caa mën a witte tomb boobu moo di dëggi dëggi ak murit dëggi dëggi ak murit pas-pas la aku doxin loolu mooy tomb bi al iraadatu saadiqa ictiqaadun wa dëggi dëggi ak murit di def ñaari tomb yuy firi wax jooju ci kanam daal ne pas-pas la aku doxin loolu nag ku ko dégg da nga xam ne tomb bi am na solo lool lool mën naa waxtaane lool mat naa teewlu lool itam solo si mi ngi feeñ ci tur wi rek ni ñu ko tëggee rek ku ko dégg xam ne am na solo ndax dëgg-dëgg ak murit jàpp naa ne ku ne kuy tuddoo murit ku ne te murit yaatu lool war nga koo jéem a xam bu fekkee xamoon nga ko nga ne kon naa waat ngir fàttalikuwaat ngir nafaraat lan mooy dëggi dëggi ak morit ndax xam gi dafa dafa am lu cay juddoo mooy dolliku gi nga ciy dolliku ba bu la fekkoon nga doon ko nga gën a góor góorgóorlu sant ci yàlla waaye gën caa sax gën a yokk itam di wéy ndax doxub murit xam ngeen ne dox bu amul muy jëm la ndax ci yàlla la jëm te yàlla amul yemukaay loolu loolu kon solos dana feeñu foofu waaye solos dana feeñ it ci kenn ku ne ci ñun jàpp nga ne kenn gënu laa doon ab morit dangay jàpp ne kenn gënu laa bëgg sëñ bi wala kenn gënu laa aju ci sëriñ bi am na ci sax ci ñun ñoo xam ne dañooy toog di xalaatal suñu bopp lan mooy ak morit ak naka la ak morit war a demee loolu lépp nag delluwaat ca cosaan la ak ca jëmm ju baax ju tedd ja nga xam ne moom moo moo fi indi ak murit wala moo yeesal yoonu iraada moo ko yeesal Cheikhul Khadim delluwaat ci njàngaleem ak ci na mu ko indee ak na mu ko leerale yaakaar naa dana am solo lool loolu itam di e, loo xam ne day feeñal solos tomb bi yi nga xam ne moom lañu tànn ngir waxtaane ko su ko defee ñu bañ a guddal rek tudd nañ tomb bi xam nañ fi mu jëm tudd nañ pas-pas tudd doxiin tudd ak murit bu ko defee nag loolu moo jëm ci tomb bi ki nga xam ne nag moom lañu tànn te naka jekkit ñu di ko tànn ci lu mel nii muy al allaama di al baaxis al ustaad al muxaadir waaye di al muridu saadiq al di al sheikh al sheikh Aafiya Ahmad ñang mii ci sama wet mboolem tur yooyu ma ko jox wala dàkkantal yooyu ma ko jox du mu jaama la xam ngeen ne du mu jaama la waaye day lu nekk lu am ci moom te benn bu ñu ci tuddoon rek mu doy sëkk mu doy ko sëkk ci mu mën a toog fii ngir mën a waxtaane tomb bii jàngalekat la gëstukat la yeetekat la ci mbindum ci ci lislaam amma amatan waaye itam ci jàngaleem Sëriñ Tuubaa itam mu am ci mu doon ci delluwaay dama ko koy wax dama koy wax lu bari fu mu nekkul sax dama koy wax ne Sëriñ Aafe la man moom laa ko jàppe man boog dama ko jàppe marji min maraaji al muridiya eh, mu nekk it kon ab yarkat waaye tomb bii ñu ko joxit nag du lu mu xam rek jàng ko rek ni ko ñëpp jànge di ko leeral waaye da ko dund da koy dund murid saadiq la ndax murid saadiq bu fekkee dañoo delluwaat ca da nga xam ne mooy na ko sëñ bi melale melo ci jël rek boo ko seetee ci moom gis ko ci te la ci gën a am solo mooy ak bëggam sëriñ bi bu di ko liggéeyal nag kon sëriñ Afia du ñu guddal ci di ko xamle moom la ñuy jox mu andil ñu nafaral ñu dëgg dëgg ak murit pas-pas la ak doxiin bu ko defee tomb yi dana ko tënk ñett rek ci du gaaw dama ciy jaar rek bu noppee incha allah bu ko waxtu yi may jël siwaat ci mooy tudd nañu al iraada ak murit mooy lan lan mooy ak murit mafhumu al iraada ñaareel ba dégg ngeen ñu tudd pas-pas ictiqaad lan mooy pas-pas ak yan ñooy xaaji pas-pas yi dana ci ñëw ñetteelu tomb bi mooy nag tudd nañu as suluuk muy aw doxin ak soobu noo ko mën a firee doxiin soobu jikko lépp tudd nañu ko yooyu itam am na ay xaaj dana ci ñëw dana ko leeral insha allahu taala kon sëñ Afia ñu ngi lay jox kàddu gi nga tàmbali waxtaan wi incha allah dugam ñun ci waxtaan wi di la ñaanal nag suñu borom subhanahu wa taala moo ubbil la sa dënn bu baax a baax te fecc làmmiñ bu baax defal la tawfiq ak aafiya ba li nga bëgg a gaaral lépp nga gaaral ko te ñun ñu koy diglu itam ak yéen ñu koy waxtaane ñu jariñu ci waaye ñu ñu koy diglu ñu koy teewlu ñëpp jariñu ci bismillah faddal mashkura bismillahi rahmaani rahim alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd yi di jiital ci nuyoo bi ñu ko suñu mbokk Cheikh Mouhamed Fadil waxee sëriñ Mouhamed Muntaqa mi tooge jataayu sëriñ bi te ñuy ñaan mu yàgg ci lool te ànd ak wér ak kattan ba yeggale mboolem mu ci yéene dañ ànd ko moom ni mu gën a rafete di ñaanal li ko waxee njabootu sëriñ bi ñëpp rek ak kilifa yi diine yeeg jullit yi yeeg taalibe yëpp rek kon di saf suñu nuyoo ci ab nuyoom suñu ndokkeel ci ay ndokkeelam di nuyu waa daayira bi muqaddamatul xidma di leen jaajëfal ci taxawaay bu am solo bi ñuy taxawee saa su nekk na bu weeru tedd wi ñëwee di leen ñaanal yàlla dëgëral leen kattanal leen ba liggéey bi di gën jàpp ndi di gën a taaru di ñaan sunu boroom def jàmm ci suñu réew mii di senegal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 ci bu fekkee ne ñëw nañ nag ci wàllu tasawuf ak wàllu tariqa baat bi day bari ñu koy firee waaye teewul maanaam yépp day lëkkaloo waat waaye day maanaam day lëkkaloo waat day làmboo ñaari maanaam yi njëkk a wax da ciy duggaale ci biir mu dolli sa nag yeneen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 daa bëgg a àgg ci yàlla ci boppam talabul wusuli ilallah wala daa bëgg xam yàlla xamiin wu raw yu ko mbooloom ñi gën a bari xame mooy talabul maarifati billah wala koo xam ne dafa bëgg ci namm gi namm yàlla du ca bëgg ngërëmam daa am ngërëmul yàlla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 ba àgg ci dañuy tudde àgg ci ñoom ak bëggoo xam xami wu raw bi nga xam ne moom la ko ñëpp xam nga xam lépp ci jëm yàlla rek lay delloo su ko defee nag léeg-léeg ñu xamle ko baat bi xam li leen xam ne euh, dañ cay ne ku bëgg ku bëgg wax day def lii nga xam suba dañ koy jëfandikoo ci menn maanaa dañ koy jëfandikoo ci luy tax lañ ca jublu mën a am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 boobu kon foofu tarku yàlla ñu ñu ko fiyee daa doon joo xam ne ku ku bëgg leen waxoon da nga ko du mën a ñàkk def léeg-léeg ñu firee ko tarkul aada bi qawli saada tarkul muridi ma alayhi al aada summa rujuuhu ila al mu'taadi qabla wusulihi kal ibtidaadi mooy dëgg-dëggi namm yàlla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 allama alxazaali tajriduna qulubana lilwaali maa atiqaadi kulli ma siwaahu qalban wa qaalaban hadaana allahu mu ne dëgg-dëgg ah, ab murit te tasawuf mooy yoon ci yu koy yu koy jàngal nit di ko ca tàggat mooy xam-xam bi koy jàngal nit di yoon wi ko ci jaarale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 ñëwaat na nga fekkaat ko feneen ñu far leen moomale baat bi kon léeg-léeg ñu ne mu rek fekk jublu ci taalib Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu bu ko defee baatu murit kon danañ ko wax jublu ci maanaam pas-pas rek mu ne bu ñu muridullaahi mooy koo xam ne rekk rek ko ñor moom rek ko tax a jóg sàkk ngërëmam rek la bëgg ci la nekk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 waaye su boobaa baat boobu foofu loolu ab xaaj la ba tey ci ba fee boo boolee ñetti yépp nag ki nam ma àgg ci yàlla bëgg ngërëmam sóobu ci yoon ba mu war a sóobu def la mu war a def ànd ak kam war a àndal na mu war a àndee ak moom nga xam ne ñetti maanaam yépp daje na ci jëmm kookee nag mooy murit koo ci xam ne benn bi nga am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 li julli yëpp war a fas ngir doon jullit da ko war a fas moom it ba doon jullit ndax murit moom mënta nekk nit ki mënta doon murit te nekkul jullit da nga doon jullit ba sa jullit eh, sax nga door a dox jëm ci murit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 awwaluha al imaanu wal islaamu baadahu islaam salaamu fa awwalu yu sex bi tawxiidi bu njëkk bi te mooy gëm yàlla balaa wér nit ki day jàng xam-xamu tawxiid kon gëm yàlla goo teg ci tawxiid mooy al imaanu bi tawxiid loolu mënta bi def ko doog a doon murid gëm ponk yi gëm yi nga xam ne lim naa ko gëm yàlla gëm malaaka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 ndigali sëriñ bi aku bëggam euh, di ñu ca soññ te te te ànd ca ak ñoom euh, kon loolu euh, lu mat a bàyyi xel la bu ko defee nag loolu mooy pas-pas bi loolu lañ ciy tënk daal ñëw nag ci aw doxiin doxiin mooy nit ki ay jëfam rek li nit kiy jëfe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 doxinu wu gaaw a gaaw a gaaw farlu lool ci dox ba loolu mooy loolu la ñu tuddee sóobu sóobu mooy doxin wu gaaw mooy di daw nga xam yow doxoo doxin wu dëgër doxoo ay jéego yu dëgër yu jub yu dëgër waaye dangay daw dangay daw loolu moo tudd sóobu boobu itam aw doxin la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 ak bëggam àggul fa kawe gën a kawe maanaam yitteem kawewul ba àgg ca njobaxtan la maanaam bëggute yegg ci yàlla maanaam wutute yegg ci yàlla wutute xam yàlla wutute am loolu sax xëy na dee su ko ñemee wax moom naa ko bàyyi noonu dégg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 guddi bi nga xam wóor na ko ne dana tëdd nelaw dana tëdd nelaw guddi tëri ñu naan dafa tëri bu yeewoo dana ndékki bu añ jotee dana añ bu reer jotee mu reer te dana liggéey itam di amul di amul xaalis di ci di joxe waaye di ci itam nag bëgg ci soxna yi bëgg ci kër yoo xel yi dégg nga donte bëgg du àgg ci xañ ko xañ ko xañ ndox diggante mag eh, eh, jëf ngir yàlla waaw kooku mooy murid bi soobuwut bi dox doxinu sago kooku am na ay tënk yu ko tënk war naa mat ñe juróomi tomb yoo xam ne murit boobu bu tënkuwul ci juróom yooyu na xam ne muritam gu boobu sax ma ngi koy euh, ma ngi koy bëgg a ñàkk bi ci jëkk mooy na gëm sëriñ bi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 waaye passeport boobu bu ko amul moom du mën a nekk murit nag lu mu néew néew na na bu ko àdduna gënal àllaaxira la na bëgg àllaaxira bu ko bu ko àdduna gënal àllaaxira te bu àdduna taxawee nar koo xañ àllaaxira na nangoo ñàkk àdduna ja ngir mën a jot ci àllaaxira ja faaw nag lu mu néew néew pas boobu moom na ne ci moom na gënit sëriñ na ko na ko bëgg na ko yaakaar te loolu na dëgër ci moom loolu mooy jëkk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 wa xaayaati kon day tënku ci sharia ci sunna lépp lu sharia waral ci moom mu di ko def lu mu xaraamal ci moom mu di ko bàyyi lu mu sib mu góorgóorlu ci bàyyi ko lu mu sopp mu di ca góorgóorlu ci di ko def tënku ci sunna mooy lépp lu muy def na dëppoog ndigal te na ko defee nañ ko ko digale bu mu fétal di def ci xelum boppam rek ak bëggu ak bëggam bu mu bu mooy bidaa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 Euh, ay yëfam diggu doomu ci aw waxinam diggu doomu itam ci aw meloom euh, kon bañ a ëppal bañ a yeesal euh, loolu mooy tom bi ci topp bi ci toppaat mooy dox doxinu sago war naa xam ne diine du bitib kese du zahirus kese waaye dafa làmbu zahir ak baatin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 wala war koo bëgg it wala farlu ci lu yokk mbëgg cofeel ci moom itam waaw mooy bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati yooyu war na caa farlu kon sifaatu saadiqil muridi murid bi am bi wax de mooy li ma wax ni rek sifaatu mooy tuubaali abdil muridin saadiqin lahumu bi xidmatin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 ay àgg ak yu rëy yooyu moom jëru woon mu ko laaj ne ko man nag naa ngi ci shariatul mutahara ak xaqiqatul munawara shariatul mutahara mooy li ci téere yi xaqiqatul munawara mooy la ca lawxul maxfuus moo xam la ca lawxul maxfuus te ñëw ci téere yi ak la ca nekk te ñëwul ci téere yi lépp xaqiqatul munawara yi koy war ko nag li ma leen li leen yàlla digal si mor say lay waxal mook taalibe yi taalibe yi murid yi te loolu mooy ci mujjug jamono sëriñ bi ci mujjug jamono bi la la mujjug jamono sëriñ bi xam ne ëpp ci mbooloo mi mbooloo murid yi bari nañ lool te itte yi àggatul fa mu àggoon eh, jëf yi melatul na meloon mu ne leen li leen seen borom digal yéen murid yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal leen ko ma digal leen ko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 te jiitu ci maanaam moom rek bu ngeen ko jëlee dugg ngeen ci biir euh, ci tasawuf dugg ngeen tam ci xaqiqa waaye la ca tolloog seenu dayo sóobu bu ko defee nag doxiinu ñaar mooy doxiinu kii daw mooy ki sóobu sóobu mooy lan mooy sidqu tawajjuhi ila qasdu tariquhum qasdu wajhillahi doona hawan maa al usul allati tanfi raunati min tawbatin quddimat xawfin rajan rajan maahu iksaar xusnin dawaman bil qanaati jihaadu nafsin wa shukru bil qadaai ridan tarku iltifat ila xaal bariyaati wa zuhd fi kulli faanin baadahu warahum maa tawakkul sabru kulla kulla saati waaw ba na mu jeexe ba àgg ca tariquhum ashratan jaat lawazimuha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 Euh, nekk ca loola ba àgg fa nga àgg ba àgg fa nga jëm door a dellu ci nit ñi nag di defee fi nit loolu mooy soobu euh, loolu daanaka di ko waxtaane nii nii la sëñ bi waxoon sëñ moo Fallou sëñ daal day daal dëkk dellu siwaat kon ay tomb lañ ci wax rek yoo xam ne euh, da fàttali yoon wa mag ñi jaaroon lay doon képp koo xam sa yitte nag àgg na ca buntub yàlla nag kenn du ko tëj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 bu amut ya dayo bu amul yamukaay di topp ndigalam saa yu dikkee saa yu digal jógee mu topp ko te bàyyi ga bàyyi gaaraw bàyyi bàyyi bàyyi ak tànn maanaam bañ a bañ a amul bëgg bañ a amul bëgg nga xam da ngay mel nit néew ci kanam ku koy sang fu mu ko ba ci jëmee mu jëm fa loolu mooy tarkul ixtiyaar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 yam ca boobee ku war a bokk ci ñu géeju ci xam-xam ngir am liggéey yoo war a méngoo ci diine ji mu jàngale ba nga ne ar jàng say faral mbaa nga jàng ba ne ar danga ci def leen kon dana la jàngal jàng mënu te ñàkk mooy di di jëkk ci ku sóobu li ñu ko jëkk defloo mooy jàngal ko bu fekkee jàng jàng nga gutoon ba mu sóoboo gut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 jërëjëf sëriñ Nafi waxtaan bi am solo lool te yaatu na lool yàlla na ñu ñu seen xol fépp gis nañ ñu xol bi ñu waxtaanee moo doon dëgg-dëgg ak murid pas-pas la ak doxin ni ko sëriñ Nafi tënk woon seen ci ay xol mu leeral la noonu xaw a jàpp sax mu jógee waaye fi mu toll nii mën a xam ne am am am solo la ci am waxtaan bi bu sañ dañ ko bàyyi dañ koo leer waaye ñëw na ci la mooy ak giraada dañ koy giraada daanaka wala ba wax giraada ci bopp ñu mën a ci ni ñu ko déggee ci wàllu marché bi ak ci wàllu diine di ngi bu yàlla waaye ni ko suñu àggee itam léegi ñun ñu ngi ci am solo baatu moom it dafa xaw a dina ko wax maanaam kii daal dafa dama solo la ci lañ jëlee rek nii muy moom it xaar boobu taxaw na ci rawatina xaaj bi nga xam ne ñu dund ko ci lu am solo te mu ngi kese rek dafa am boobu daal maanaam moom baatu mën na ci am wala sax moom weesu ko sóobu kon léeg-léeg sax dañu ci bind sa bind suñu ko ko ko daxal nañ koo xam ne dafa aju ci sëriñ waaye fii ci am solo ci gën a am solo leeral ko mooy ne bu ñuy wax mooy dëgg ak taalibe bi faaw dafa war a boole pas-pas ak jëf biir ci biir bi ñuy jeexal comme boobu jiitu nga ñëw ci xam ne pas-pas ci bopp ak xaaj bi maanaam leeral na ne mënta ñàkk ngeen nga doon mooy dëgg faaw da ngay boole pas li nga war a fas noppi di jëf nag di di dox nag doxin ku ku fas fas fas bu mel noonu fas fas boobu ci ñëwee leeral na ko mën a ne mën na ñetti beneen ba ne da ngaa bëgg moom a am ci na ci xeccam ci jaamam ay xecc am na ci biir jaamam bi bindee bi ay xecc damaa bi am na ci ay ñoo xam ne daf leen a jagleel wilaaya ak péete boo xam ne péete bu njaboot la ñu leen di tuddee ay awliya ak ñu ngi feeñ ci internet saalihin ñooñu foofu it na fi ne lu am solo mooy ne ngir sa pas-pas mën a rafet faw da ngay fas da ngay ñoom ñoo ngi danga leen di nongul da nga leen di nongul cër boobu leen yàlla jox te loolu yaakaar naa bayit yi sëriñ bi indi te sëñ sëñaafe tudd na ko ay yoon ci waxtaan wi ca xoqa muy tuubaali abdin muridin saadiqin lahumu lahumu jooje dafay dellu ca ñu baax ñooñu mu doon tudd ñooñu mu doon melal te melowoo melo yu murid saadiq yi dëgg-dëgg la wax ne ñooñee nag ke nongul seen cër yooya ak loo ak ak ak lool noone leen yàlla def mu neex la moo xam nga di ko defee bi xidma aw bi xob aw hadiya muy muy xeeti ñetti anam yooyu mu wax bu mu ci mën a doon kooku mooy ki nga xam ne texe ëllëg dana am ak texe kon faw nga rafetal sa pas-pas ci ñoom ñëpp nongul leen di leen yàlla defal beneen bi ci des ci pas-pas yi ginnaaw ñaar ya muy bi ko ñetteel nag mooy nag murit bi fas pas-pas bu dëgër ci sëriñam bi nga xam ne moom la yaakaar rawatina bu dee ñun ñi nga xam ne yaakaar yaakaaruñ ku dul Seexul Xadiim ñu doxale ko suñu diggante ak suñu boroom boole ci cofeel bu dëggu xam ne sëriñ bi mooy sëriñ bu mag bi ni ñu koy waxe yi dox ci diggante bi wala ñi dox ci diggante bi ay jëwriñ lañ ñu ko sañaa fay waxe bu defee kenn ku nekk am nga foo ko jokk kooka am ci kum ko ba keroog muy àgg ci sëriñ waaye sëriñ bi moom mooy waasita bu mag bi nag mu am waasita bu magam boo xam ne nag moom lay tudde al waasitatul uzma wal wasilatul kubra di sayyiduna wa nabiyuna wa habibuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ci jógee itam sëñ Afee leeral na lu am solo ci tomb yi te mooy nag te li li mu gën a taxaw nag xëy na su waxtu wi yaatu woon sax danañ ci gën a kii bu baax mooy ak sóobu ndax ginnaaw bi mu xamlee lan mooy iraada xamle lan mooy pas-pas ñëw na wax xamle yit xaaji pas-pas yi ñëw na nag xamle lan mooy ak sóobu nag wane na ne sóobu moom bu ñu ko waxee mooy dox jëm ci yàlla te ànd ak kilifa gu mat kilifa benn nga nga ngay ngay dox jëm ci yàlla ngir wut a xam yàlla wala ngay wut a àgg ci yàlla wala ngay wut a e, e, àgg ca dayoo ba gën a kawe ci gëm yàlla te yooyu ñett bu ko waxee xel dana dem ci yi taxoon sëriñ bu mag bi jaayante woon tukkib géej gi te mooy kamaalul iman ak kamaalul islaam ak kamaalul ixsaan te mooy al maarifatu wal wusulu wal yaqin mu xam la it na moom sëñ Afiyé ne nit ñi nag wala boog ñiy tuddewoo ay murit ci ni ñuy sooboo jëm ci seen borom dañ cee wuute waaye wuute bi xëy na lu mu bari bari mu tënk ko ci ñaari xeet kum tuddee muqtasid ak kum tuddee mujtahid koo xam ne da koy tuddee koy dox doxiinu sagoom ak koo xam ne moom day dox doxiinu di xelu nga xam ne moom day daw taxawut ñooñu leeral na ci am solo doonte ku njëkk ki baax na ndax mu muridul aaxira la ko tudde feneen yàlla la bëgg wala boog alaaxira daal moom daal fexee mucc ëllëg rek moo ko ñor euh, dem àjjana mucc ci sawara mi ngi góor góor lu man ci sellal jëfam tudd na yi sax dawaabit yi nga xam ne mënta ñàkk ci moom maanaam yi yi nga xam ne mënu cee ñàkk tënku ngir loolu mën a wér mooy faaw dafa war a bëgg yàlla bëgg alaaxira bëgg sëriñam di ko liggéeyal di ko jox addiya dafa war a jàng ay farataam jàng tawxiid tey maanaam di dund itam tawxiid ak fiq ak tasawuf ak mboolem yi aju ci yooyu yëpp tënku ci sharia ak sunna waaye diggu doomu ci pas-pasam diggu doomu ci jaamu am diggu doomu ci ay waxam ak ci ay jëfam li ko sëñ bi jàngale wala takun mu farg taw mu tabam jeex yooyu yëpp dama ciy bañ a sori ndax waxtu yi dafa dafa ñoo jàtt lool waaye mu xam le ne it kooku itam dafa war a xam ne murit wala nit ki dafa war a yittewoo xolam ni mu war a yittewoo aw yaramam ci fexe ba lépp luy raxas xol bi mu di ci góorgóorlu lépp luy tax mu takkaayu jikko yu baax yitam bu jikko yu ñaaw ñaaw yooyu setee yooyu itam mu di ci mën a góorgóorlu mu di ci góorgóorlu booleeg rafet ak jëflante rafet jikko ci ni muy jëflanteeg ay moroom yu jaamam góorgóorlu itam nag ci liggéeyal sëriñam ci sopp ko ci di ko jox addiya andi na bayit woowu ma jàngoon léegi ci xoqa ndax xoqa day mel ne ku waxtaane lii mu doon waxtaane faw xoqa du mën a ñàkk teew ci sam xel ndax daanaka mën nga xam ne mooy photographie bi nga xam ne la sëriñ bi photo woon xam yi nga xam ne ñoo jaayante woon ak moom Euh, Mbàkke Kajoor ja ba ca jàpp bi mu jógee ci géej gi ca moo xam gànnaar ja ca Ceyeen Jolof ba ci rawatina nag ca lu jiitu muy dem ci géej gi nga xam ne noonu la sëñ Modou Lamine Diop Dagana séddalee ñi nga xam ne ñooy ñi àndoon ak bi maanaam ñetti catégorie la ko séddalee ci àndum sol mubaaraka muy at tabaxal ulaa bi nga xam ne ñoom ñoo jaayante woon njëkk géej gi ñooñu moom sëñ bi da leen xeeñal xetam mosal leen cafkaam def ci ñoom loo xam ne defu ko ci kenn ku dul ñoom moo tax ñu mel nañ mel ñoo ñooñu ñooy arraidul awal al jiilul awal min al muridin ak ñi ñi topp ci ñoom ñooy ñi nga xam ne ginnaaw géej gi lañ ñoom it jàmbaar lañ lool ndax ñooy bi sëñ bi ñu bisee nekk ak ñoom gànnaar nekk ak ñoom ci yéen ba ci mujjug ci yéen jolof ñooñu it yéesuñu ñee yéesuñu ñee nga xam ne ñoom la njëkkoon a tudd lenn ci njabootam gi doomam yeeg yenn ci saadi xam yi nga xam ne ay tànk la ñu woon ci boobu ak ñenn sax ci ñi nga xam ne njaal biiru njaareem sax mën nañu am am na ci mën nañ leen a boole ci atabax saani boobu mun waaye am na ci nag tabaxa boo xam ne moom ci mujjug njaarim nga te mooy li sëñ affaire doon mu doon mujj leeral nga xam ne yi bari na tabaarkal la euh, xam naa loolee sëñ euh, waxtu dañoo jot lool loolee sëñ si la doon junj ca bi sëriñ bi bindee maanaa ca bayitam ba wax ne euh, ahaddanii jannaati adnin tajri min taxtiha al anhaaru maaxel xijri tax xéewal yi bari ba lu baree bari soppiku ñu baree bari seen maanaam yitte xaw a wàcc seen pastéef xaw a wàññiku ba yu bare bari ñu seetlu ko ci kër sëñ bi yoo xam ne daawuñu ko seetlu ba sëriñ bi am ci jaaxle moom ci boppam sax ci ci ci zahir ba laaj ko boroomam ba boroomam ne ko bokk na ci li ko waral mooy nuun googu nga def ci addanii ji bokk na ci li indi xéewal yu bari yi ndax ku ne xam na ne ak ak tarbiya ak euh, ak yar dafa laaj weet tubaa tubaa ji ba mu koy sañ tubaa ju njëkk ji xiif bi metti woon na demoon na ba suñ borom sax di ko wax ne ko ahmadu sa taalibe yi damaa bëgg nga xam ne du ñu ay malaayika ay nit lañ jox leen nag ñu lekk te naan loolu nag ku ne xam ne ne safaan ba moo am njaareem bi mu ko nee nuun googu nga def ci a addanii jannaati adnin tajri min taxtiha al anhaaru maaxil xijri moo ko waral mu ne ko kon nu may def bi mu demee ba nar jaaxle mu ne kon léegi na ko far mu ne ko soo ko faree xéewal dootu amati lépp day tëju mu mu mel ne ku jaaxle mu ne kon léegi da ngay ñu ñu daal koy tegtal ne ko da ngay far nuun gi def fi ak laam ci loolu ci la ci ci ci la binde aadda lii a lii xam ngeen ne ak aadda nii am na wuute ci wàllu maanaam déggin wi ci ci mooy li sëñ laa doon wax defal ak def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu yàlla def na ma may ay àjjana bokkul ak yàlla defal na ma ma nekk ay àjjana loolee kon moo waraloon euh, xëy na yi maanaam yitte yu bari daal di xaw xaw a ko ba ñu baree bari wutatuñ yàlla sóobu gi sëñ Afe doon wax léegi tàmbali di wàññi comme daal waxtu wi jot na jot na lool ba ñu doon bàyyi euh, sëñ waxtu waxtaan wi am na solo lool. xam naa soobu moom fi mu nekk ni li li sëñ sëñ mbag bi tontu woon sëñ Mor Sey daal yaakaar naa ne so loolu moom moom mooy li mat a bàyyi xel mooy lu jafe la waaye nag sëñ ñaafe nag ubbi na bunt yi wax na nee na bunt yi tëjewut de xanaa kay gis cheikhu murabbi boo xam ne bu mat sëriñ dëgg-dëgg nag boo xam ne moom lii yii mu doon wax maanaam moo waa maanaam moo waa safaat yi mu doon wax ci ci koo xam ne day day mat sëriñ dëgg-dëgg ba nga mën a sóobu ci ci ci ci ay loxoom maanaam mu kammil kaamil mu kammil ah kooku nag du ma wax ne amul de waaye fi mu nekk di jafe na ci jamono ji lool waaye nag ku ko ku ko ku ko gis moom man ne fan yi am na am na am na benn waaye bu ñëwoon ci man ne ma man de damaa bëgg a sóobu yoonu yàlla ñu tegtal ma la ma ne ko yii kaay xam nga nooy defa jaaral fi nga jaaroon demal daarul mooti sëñ ku ñu wax sëñ maanaam Abdourahman am naa ci moom yaakaar ne moom kooku moom sëñ maanaam sëñ boo xam ne daa ma sëriñ la nga sóobu ci ay loxoom waaye man man moom maanaam xawma sama bopp dara sax nag waaw bay bay kii kenn waaye nga xam loolu loolu li ñu wane mooy kon ndekete am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi bëgg lu baax am na ñoo xam ne ñu ngi wut yoon wuñ jaar mën a àgg ci yàlla kon gis ku leen dimbale ba téye téye gi seen loxo bañ mën a àgg loolu yaakaar naa ne ku leen ci jàppale dana ci baax kon su ñaafee ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm eh, liñ ci jublu woon ci waxtaan wi wax dëgg yàlla am nañu ko leer na te jot na xëy na commentaire yi su ma ci duggee damay gën a lëndëmal rek dama <laughs> gën a jaxase bu ko ñu ñu fàttali rek bala ñoo jóg ne incha allahu taala eh, suba ak jàmm ñeenteelu jataay bi dana am fii ci jumaa ji ci jataay xam-xam yi ni ñu ko waxoon ci tàmbali bi su ko defee euh, li ñu war a waxtaane suba mooy tooñaange ak tooñ ak tooñ xeet yi mu am ak lor yi nga xam ne da koy da koy da koy waral ci nit ki ak ci euh, xeet wi ak zulmu anwaa'uhu wa adraaruhu ala al-fardi wal mujtama suñu doom di jàmbaar lool ci waar yi moom itam sëñ Seexuna bu sa cumbuleen moo ko war a def incha allah ñu ngi sant bu baax nag euh, mboolem site yi internet yi ak rajo yeeg télévision yi nga xam ne ñoo doon jàllale euh, waxtaan wi waaye bu ñu tuddee rek euh, alqanaat ar rasmiya li daaira li daaira muxaddimat xidma te mooy GMT TV dana yóbbaale mboolem seen yi ak mboolem canal yi ci des yëpp muy muy muy rajo yi ak maanaam télévision yi ak mboolem réseaux sociaux yëpp rek ñu ngi leen sant leen gërëm di waxit ne ci ndigalal daayira bi képp koo xam ne am nga laaj boo bëgg laaj mu jëm ci sa wàllu diine man nga koo jaarale ci numéro whatsapp yi muy bëgg a tudd incha allah borom xam-xam yi danañ ci jot te bu buñ ci àggee ci fatwaay dañ la tontu muy 77 678 57 66 ak 77 072 94 76. ko sëñ Afee ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla ci tudd daayira Moukhaddamatoul Khidma ji de sëñ yàlla yàgg la lool wéral la te doon la afiya gën a barkeel xam-xam bi ba nga gën a mën a liggéeyal itam lislaam gën a mën liggéeyal Cheikhul Xadim eh, ci baaxu Cheikhul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.